dañu confirmer seen qualification ci coupe du monde bi di Russie 2018 euh, parce que Afrique du Sud dem nañ dëkkam door ko 2 à 0 bi ñu ñëwee fi ñu recevoir ko door ko 2 à 1 ci plateau bi ñu am fi benn expert boo xamante ne bu ñuy wax waxu sport suñu xel day dem ci moom muy Mame Fass Ndoye bienvenue sur ce plateau. bienvenue merci euh, Bijou euh, bonjour à tous euh, Mado Kiara Mamadou Ndiaye euh, oui. Bijou et tous les téléspectateurs de Yeewu Leen waaw tey nag moom. na fi trop. jàkkaarloo bi ma naroon nag moom non <laughs> combat bi malheureusement du am quoi mais mais maa ngi koy nuyu <laughs> waxal na fi euh, lu nekk dégg nga nga demee congé avant ngay dem yëgle na xew bi kenn yëgle wu loolu boo waxee mu ne man maay ah. géwél bi non Pape Cheikh moom moom xam nga rek kenn mënul ci moom dara donc dañ koy bàyyi rek électron libre la dañ ko bàyyi mu def li mu bëgg <laughs> c'est clair alors Mame Fatou euh, qualification euh, coupe du monde euh, Sénégal 15 ans après parce que yàgg nañ ko xaar depuis 2002 chaque année dañ doon kaas bu ñu jouer coupe du monde demu ñu ñëpp dañuy am benn désespoir boo xamante ne moom la ñuy dund ñëpp dañuy mer actuellement qualification bi naka nga ko dundee yow et nan nga ko nan nga ko jàngatee Euh, ni ma ko dundee je pense que ni euh, par rapport ak 2002 dafa am beneen aspect boo xam ne moo ci bokk léegi avant 2002 j'étais euh, simple supportrice mm. doon ko seetaan comme ñëpp daw affaire yooyu noonu parce que bon voilà à l'époque j'étais étudiante mm. léegi nag 15 ans après yàlla def aussi moy liggéey si millier sportif bi dund ko en tant que journaliste donc peut-être les émotions sont sont moindres mais beneen façon de dundin nga koy dund ak peut-être te obligé aussi nga garde benn benn recule bi pour mën a tamit euh, wax ak sénégalais yi mais c'est vrai que c'est une grosse émotion parce que lu tax parce que joueurs yi pratiquement ñi nga xam ne ñoo bokk ci équipe bi dafa nekk joueurs yoo xam ne dañu nekk euh, presque je peux dire on a grandi ensemble. Mm-hmm. parce que bi ñuy commencé ay 2012 ay ñoom ceexu ay ñoom Kara pratiquement dafa fekk mu nekk même génération bi man ma nekk journaliste di leen suivre ba tey nag qualification bi am donc pour man double double mbégte la. Mm-hmm. Euh, ma gis ay jeunes yoo xam ne vraiment ils ont fait leur gamme ba yegg si fii loolu loolu mbégte la et puis je suis aussi soulagée pour les Sénégalais mm-hmm. parce que Sénégalais dafa bëgg football dafa bëgg émotion mais malheureusement on a eu tellement de maa ngi fàttaliku fii Sénégal def 2-2 bi bu metti la woon euh, Sénégal Côte d'Ivoire on était à un but d'une qualification à la Coupe du Monde en 2014 boobu dara gënu ko woon metti. metti woon na aussi bon avec les mêmes jeunes aussi ñu reveniraat bi yoon acquérir la la qualification euh, de haute main vraiment c'est c'est une fierté. donc on est content pour les Sénégalais et puis on est content aussi de l'avoir vécu à à l'intérieur. mais c'est clair et puis euh, li ñu seetlu aussi mooy engouement général bi mu bi mu am ba ci première dame nekk di di supporter si millions yi. waaw loolu aussi image bu ma marqué la vous regardez ce plateau tey Mamadou Ndiaye est en minorité <laughs> ay jigéen rek fi nekk mais image bi aussi <laughs> voilà <laughs> euh, comme quoi comme on dit ah derrière tout grand homme il y a une grande dame ah président Macky Sall nekk fi woon mais Mariam Faye Sall ñëw euh, communiqué ak public bi représenté ñëw donc euh, assister à ce match bi bu bi duggee tamit mu jubilé vraiment man image bu ma bu la parce que souvent dañuy dañuy minoriser un peu femmes dans le milieu sportif ouais. mais ça c'est une image forte lay ne waaye jigéen lan lay encore que léegi mi ngi wàññeeku mi ngi wàññi day ñëw mi ngi wàññeeku man stade ay copinam ñun dañuy dem stade donc euh, jigéen ñi bëri nañ si kii bi mais mm. lii c'est une image forte en même terme de communication de marketing mm. euh, donc tey ñu gis euh, première dame ñëw yore drapeau Sénégal def le tour d'honneur man je man vraiment c'est une image qui qui me marque voilà bu dugalee dugalee but bi juste avant la fin mais dafa tëb mu leer ne yëg la ñuy dund léegi mi ngi doon supporter carrément mais c'est juste communion tamit euh, communion bi amoon démb mën nañ ci ñëwaat parce que stade bi comme ni nga gis moom nekk na moom année année yi nga xamante ni vraiment Maam difficile la mm-hmm. mais démb ñëpp ñëw mu fees dell à un certain moment ñu wàcc nañu ba xam pour ñu duggaat dañu même ay journalistes dañuy am problème parce que dañu naan dañuy tëj affaire dañuy tëj stade pour sécurité pour sécurité parce mm-hmm. que euh, nekkoon na stade bi nga xam démb dafa fees del del del del soixante mille spectateurs ñëpp ñëw. comme un seul homme. li nga xam ne mooy euh, supporter équipe nationale bu Sénégal benn objectif mooy Sénégal. Euh, def fête bi équipe bi ci kanam mu li ma ci gën a neex mooy même bi incident amee ci biir stade bi. <laughs> les gens l'ont pris de manière positive en fait jël seen ay téléphone tàkk et c'était magnifique c'était beau comme quoi au départ en fait man je pensais que d'ailleurs ça faisait partie voyez j'ai compris que ni en fait coupure au courant moo am mhm. mais mhm. loolu aussi je veux pas gâcher la fête ou faire <laughs> de la réflexion mais euh, voilà day ni que aussi Sénégal parfois on est très exigeant mhm. avec notre football mais est-ce qu'on met les moyens suffisants pour notre football parce que euh, match bu toll nii ñëpp di ko xaar on a eu par exemple dix minutes de retard boo xoolee image yi fi mu jugee pratiquement toutes les chaînes internationales ont montré le match. Mhm. Mm. donc euh, mm. télé. Mm. ñu am coupure 5 à euh, problème de sécurité lépp mënoon na et c'est pas la première fois parce que gisoon nañ fi euh, temps yee def le match de gala. Mm-hmm. contre le paludisme. Mm-hmm. la lutte contre le paludisme. aussi projecteur toj fii donc aujourd'hui coupe du monde aussi réflexion pour que ñu xalaat ci infrastructure. Mm-hmm. et puis surtout lii nii bu ñu ko est après dinañ ñu jox ñu organiser ah coupe d'Afrique bon c'est sûr que il faut pas rêver il faut pas aller a déposer wax nga ko wax problème infrastructure à chaque fois moom la ñuy moom la ñuy casse moom la ñuy mais coupe du monde à chaque fois day am ay revenus déjà mm-hmm. ñu ngi wax 6 euh, voire 7 voire même 8 milliards yoo nga xamante woon nañ ko jot mm-hmm. mais si c'est ce n'est pas trop tôt mais juste parfois tamit dañuy xalaat ci mm-hmm. infrastructure du Sénégal leen mhm. non infrastructure yi c'est un vrai problème au Sénégal mhm. parce que gis nañ malheureusement le drame tamit qui s'est passé au stade Demba Diop mhm. tey stade Demba Diop kenn mënu ko utiliser donc ñi ngi wax problème mu ñi ngi wax solution wu raser tabaxaat stade de l'amitié kenn lañ ko tabax c'était depuis euh, voilà les années 80 donc tey voilà aujourd'hui boo demee euh, si yi même stade bi moo moo moo ci tane voilà pelouse problème de pelouse donc tey forcément il y a une réflexion qui doit se faire autour de la fédération du ministère des sports am na manne financière bu ñuy xaar bu war a dugg euh, donc il faut que aussi ñu delloowaat football bi li ñu jox parce que tey Sénégal booy wax sax dañuy ne c'est une erreur de l'histoire que sax Sénégal qualifié wu coupe du monde tellement yeneen dëkk yi soo fa demee investissement ya fa am pelouse yi fa nekk euh, Afrique du y a combien de pelouse voilà <laughs> euh, loolu yëpp mooy tax vraiment suñu xale yi war nañ leen war nañ leen delloo njuk gën parce que li ñuy def nag euh, condition yi du condition yu favoriser aussi performance loolu aussi faut j'espère que ça va porter à réflexion mais lu ñu bëgg a wax aussi mooy que euh, Aliou Cissé en 2002 bi ñuy dem euh, coupe du monde mi ngi fi woon moom moo yóbbuwaat équipe bi à la coupe du monde avec quelques personnes de de l'équipe de mm. ñeneen ñi andi ñu dañ leen intégré wul dafa am séparation <laughs> qu'est-ce qui se passe lan moo tax quelques personnes rek lañ gis bon man euh, je pense que ni euh, bon déjà dans un staff euh, il faut faire un choix mm-hmm. ni ñuy waxee choisir c'est éliminer mm-hmm. Aliou Cissé peut-être choisir na joueurs yi nga xam ne ñoom la gënoon amal affinité mm-hmm. à l'époque en tout cas ñi mu gënal am confiance di liggéey ak ñoom ku ci mel ni Oumar Daf ku ci mel ni toni Siva ku ci mel ni Lamine Diatta am na ñoo xam ne tamit ñu ngi ci équipe ñu ngi ñu ngi ñu ngi ci génération 2002 aussi di wax seen seeni soxla ku ci mel ni ñoom El Hadj Fadiga Alassane Euh, ak ñeneen ñi ñoom Moussa Ndiaye même Ferdinand Coly ñoo ñëpp ci génération 2002 la ñuy kii mais je pense que ni aujourd'hui euh, Aliou Cissé a choisi son staff ñi muy liggéeyal am na ñoo xam ne nag peut-être ci côté 2002 bi sawaruñu mhm. euh, mënu ma ni sawaruñu mais ñi ngi émettre ay critiques loolu peut-être mën na créer aussi benn genre distance mais c'est pas pour autant que ni je pense tey kuy nekk ancien international war nga bëgg ci lii parce que un coach local national ñëw fexe ba yóbbuñu coupe du monde loo xam ni ay tubaab jaar nañ fi ils ont échoué au même stade du combat donc loolu je pense que ni mbégte ak fierté ancien international sera le seul en Afrique lors euh, mondial moom rek moo fi nekk Afrique euh, coach local bi nga ne moo yóbbu moo yóbbu coupe d'Afrique bi coupe d'Afrique bi euh, oui génn ku mel ni Aliou Cissé mm. Ibenge pratiquement ñu fa coach locaux yi ñeneen ñëpp ay coach tubaab lañu mais maam bu ñu ñëwee ci bu ñëwee ci bu ñu ñëwee ci statistique gu Aliou Cissé par exemple mu nañu wax ci éliminatoire déjà def na 4 victoires 2 nuls 0 mm-hmm. défaite 10 buts marqués trois buts encaissés parfois da ngay dégg ay critiques yi toujours nañ koy critiquer lu bari que ça soit mu nekk sénégalais yaa ngi doon euh, énumérer les anciens internationaux yi nga xam mooy génération 2002 mais à chaque fois dañ koy critiquer mais à chaque bu ñuy xool ci statistique yu mooy résultat yi ça ça mais certes nag dañ koy rebondir ci critique yooyu je veux dire quand on critique à ce point Aliou est-ce que c'est bon pour l'équipe même Bah, Parce écoutez, que... je pense que football de haut niveau ak critique ñoo ànd. Mhm. Vous que ce soit dans les journaux bu ñu defee match ba pare dañ leen di jox ay notes peut-être que fii Sénégal mhm. le seul côté euh, négatif c'est le côté on va dire explosif lu tax ma wax la loolu des fois joueur dina raté match mm. euh, gars yi xam nga si réseaux sociaux yi wax ko yoo xam ne nit ki mën nga ko critiquer mais nag da ngay xam ne que nit ki aussi am na yaay am na papa am na mais les fois les gens se trop mais critique dafa baax ci lu nekk mm-hmm. bu dee Mado chaque jour day def ñëw def mm-hmm. rubrique am mm-hmm. euh, ñu naan ko baax na baax na kenn du ko wax ni que ah lii mën nga ko améliorer du sotti équipe nationale bu Sénégal forcément ñun ñi nga xam ne ñooy ànd ak ñoom ñun ñi leen di seetaan sénégalais de manière générale man waxuma sax journaliste sportif yi mhm. sénégalais dafa bëgg football mais sénégalais aussi dafa xam football mhm. te je pense que ni tey équipe bi critique yi am na côté positif boo xam ne indi na ko ci parce que gis nañ ni que Aliou Cissé ubbeeku na côté communication début bi c'était difficile voilà euh, les problèmes des conférences de presse mhm. avant c'était euh, voilà on na yoo xam ne c'est sûr que y a l'opinion l'influence de l'opinion aussi qui joue ouais. donc munoo ne coach bi dafa fermé munoo ne critique yi ëpp na munoo ne ëppul mhm. l'essentiel mhm. na critique yi objective bu nga ñan tombé aussi dans le lynchage di wax ni ki lu mhm. ñaaw wala nga koy wax loo xam ne yow boo nekkoon place am du la neex wax la ko mais je pense que Aliou Cissé euh, c'est aussi un homme de conviction parce que euh, affaire bi am na foo xam ne boo dëgërul Euh, doo dem de <laughs> ah euh, voilà parce que aujourd'hui def na ay choix yu radicaux comme par exemple par rapport euh, à certains joueurs qui étaient là. mu décider ni moom il ne va plus aller avec ces joueurs là. pour le moment l'histoire lui donne raison. Mm. mais football tamit doo tëju. selon le contexte du moment. Mm-hmm. nga wut ay joueurs dugal leen greffé leen cette équipe. Mm-hmm. mais pour le moment je pense que il choisit son chemin il s'y tient. Mm-hmm. et dina déglu mais bon les résultats plaident a dans six mois certes avant mois de mars war nañ jouer euh, éliminatoire coupe d' Afrique mais dans six mois ñu ñu dugg ci coupe du monde bi nan moo war a mën a nekk préparation bien. Euh, Aliou Cissé nan la mën a war a mën a yaa ngi wax léegi ba xam ne day tëj équipe bi du da koy gën a war a mën a ubbeeku parce que y' a beaucoup yi nga xam ni à euh, l'extérieur di évoluer nan la mën Sénégal war a mën a ne taxawee avenir am ci coupe du monde bi préparation. bon moi je pense que loolu déjà euh, ñoom ñu ngi ci ñu ngi ciy xalaat mais man sama gis-gis bu gàtt mooy ni que euh, équipe bi euh, aujourd'hui quand même am na ay acquis. Mm-hmm. ay acquis waxuma seulement sur le plan sportif mais même sur le plan logistique parce que am na façon boo xam ne fédération bi ak ministère bi ñu ngi koy fonctionner. di travailler sur chaque match dem defi ay mission de prospection dugal joueurs yi ci conditions yu baax loolu léegi devenir na une habitude mm. donc ça veut dire que ni am na yoo xam ne aujourd'hui ce ne sera plus un problème mm-hmm. ay problème de prime ay problème de logement même s'il y a eu le couac de Londres mm-hmm. c'est arrivé une fois mais je pense que du arriver l'autre lu bëri mm-hmm. donc sur cet aspect là déjà am nañu acquis léegi sur le plan sportif Euh, coach bi aussi je pense que il a des joueurs de confiance. Mhm. yoo xam ne moom lay liggéeyal depuis depuis le départ. voilà une colonne vertébrale bien mhm. assise boo xoolee. ne on ne change pas une équipe qui gagne. mais aussi football dafa doy waar parce que fii ak 6 mois lu ne xaj na fi. Mhm. dëgg la blessure xaj na fi méforme xaj na fi mën nga dem sa club mu changer entraîneur entraîneur bi ñëw il ne te fait plus confiance il ne te fait pas jouer. ça c'est des équations yoo xam ne coach bi il va devoir les gérer mhm. au fur à mesure mhm. euh, des six mois ouais. donc mais euh, je pense que ni ossature bi mi ngi fi mhm. mais aussi il faut que mu ubbi toujours une porte boo xam ne am na ñoo xam ne bu ñu defee ay performance yu rëy wala ñoo xam ne mën nañ ko indil plus-value faudra mu bàyyi leen bàyyi leen xel mais je pense que ni tey par rapport ak euh, joueurs yi mu utilisé yëpp quand même il a une vue assez large ci effectif bi nga xam ne mën na ci appuyer wu pour dem coupe ma Fatou éclaircissement yi. merci beaucoup leer na nañu débrief bi moom waaw mooy <laughs> débrief da ngay a comprendre enjeu yeeg affaire yi tout cas merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Mm-hmm. Euh, pour waxtaan ak ñun ci match bi balaa ngay dem dañuy may euh, joueurs yi ñoom Cheikhou li ma lay wax dem ba léegi xam nga ko indi 20 millions yi 10 pour laa ci laajte <laughs> maa jox pour cent ak kan. Moussa sa samay 10 pour cent ñaata 6 millions ci supporter non kooku miinu ma ko ku bees si kan non wala. Opanguet Opanguet waaw Opanguet moom sénégalais la. ah waaw sénégalais la kay wax dëgg yàlla démb damay seetaan ñu naan Opanguet affaire yi di dem camp au Sénégal ma naan mais kii moom sud africain la wala il faudrait que ñu ñu ñu xool affaire yi bu ñu doon amoon euh, nu ñu koy waxee incendie ci 10 villages. <laughs> bu boo génn àdduna war na mën duñ ci gis benn sant boobu mais bon <laughs> Ngeetlu Si c'est un peu un peu dans ce cas là non non sérieux même bu may seetaan muy jouer on dit Opa Ngeet et je fais ça je pense que ni sénégalais yi xamaguñ ko mais on aura aussi l'occasion de mieux le découvrir en tout cas li mu wane ci terrain bi baax na yéen a ngi fi voilà exactement donc il ñu ko xam parce que ko xamaguñu mm-hmm. mais bon xam naa ni loolu aussi ci travail juste pour faire une petite parenthèse mm-hmm. quand même c'est un travail à saluer du côté du staff de manière générale parce que quand même dem nañu jëli ay joueurs yoo xamante ni tey vraiment mën mm-hmm. nañ ne valeur ajoutée la pour équipe nationale bi kooku seen mérite lu am solo la aussi l'avenir aussi surtout c'est clair donc euh, son bii di ñëw koy may pour encourager leen pour wax leen encore une fois que ñu ngi seen ginnaaw et surtout wax Aliou Cissé que les Sénégalais sont fiers de fiers <laughs> Samba kay dem wax dëgg yàlla yow ñu nag yow ñoo fi toogandoo di seetaan télé bi en direct <laughs> mais à ce qu'il paraît